bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ni déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah walhamdulilah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada al yawm wa xayra ma baad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 ndax nu waajale ko tukki bi nga xam ne dañ koy tukki te nu ko doon waxtaane démb rixlatun ila daaril axira yonent bi indil ñu loo xam ne dana tax bu nu fi jógee sunu ginnaaw bëndëng ndeysaan bu nu tëddee ndeysaan tër ba neex bu nu dekkee dajeg yërmande bu nu duggee aljanna mu gën faa neexati sallallahu alayhi wa doon koo xam ne lépp lu xam ne baax na ci pénc mi mu wax nu ko dundam gi yépp ay wax la addis bëri waaye gi lépp li muy bari bari lépp moo ko wax la ca wér lépp moo ko wax ndax daf daawul waxantu te daawul noppi ndax wa ma ala illa al kuy tabliix nag doo noppi mukk waaw sallallahu alayhi wa sallam wax rek waaw wax rek ndax waxam yi dafa bari njariñ loolu nag mooy mooy kënz bi saxaaba ya daan ko déglu bu doon tey danga naan ñoo ko yóbbu trésor déposé nu ko ku soxla ci ñun dem jël trésor public la waaw moom tam mu koy def ci public bi sallallahu alayhi wa bind bi weesu ci listixaara lañu dikkaloon ndax yonent bi dafa bëgg nu bàyyi gisaane tey listixaara gisaane mooy dem ci nit mu seetal la ba xam lii dana baaxam du baax loolooy gisaane yonent bi daf koo tere istixaara nag ku ne mën nga ko defal sa bopp moom lañ doon jàng dimanche ji weesu waaw ku ne mën nga ko defal sa bopp ñaar rakka ngay julli ginnaaw faate loo ci teg baax na ne yàlla yaa xam xaw ma yaa am kàttan aw ma kàttan maa ngi lay tànnaloo ci jëf ji may bëgg a dugg su baaxee ci man te gën yàlla na jàppandi bu baaxul ci man te gënut dàqal ma ko te indi li gën daal di xëy dem defi loolu ñépp a ko man waaw waaye dangay dem fenn ni dangay ngay lu ji ñu seetal la ba xam diggante diw mi ak diw ndax seen wërsëg yi dëppoo na am déet loolu kenn du ko seet loolu kenn du ko seet ki nga seetloo bu ne la dëppoowul rek nga weddi yàlla dal di koy gëm moom wa man ataa kaahinan fa saddaqahu faqad kafara bi ma unzila ala muhammad yonent bi nee na ko dem ci gisaane kat mu wax la loo gëm weddi nga ma weddi nga yonent weddi nga alquran weddi nga li ñu wàccee ci muhammad faqad kafara bi ma unzila ala muhammad lu tax kon ngay dem di gisaane loolu di ak seetlu yemal ci listixaara bi la yonent bi jàngal yomb na ñun ñëpp a ko man tabar ñoo ko war a man tabarkal la mu ñëw ci beneen tomb bu am solo tey mooy itaamu taam joxew ñam itaamu taam joxe aw ñam joxe aw ñam maanaam togg aw ñam jox aw nit allahu akbar moo tax yaayu doxandéem foofu mu ko jàppoon foofu la san meer Sarr nekkoon ca ndar ndeysaan yaayu doxandéem yaayu doxandéem bu xëyee rek marché la xëy la koy doomam jox mu boole dem ca marché ba lu muy doyee lu muy wuti marché day dugg añ bu ñëwee këram taaj daal di taal bu sottalee jël taxi mbaa wutiir fu mu jëm hôpital képp ko fa doxandi mu yàq la ci ceebam boobee te xam ngeen ndar-ndar bu yàgg ndar mën naa ceeb waaw man mas naa caa añ ca añ yaayu doxandéem yooyu laaj ko Lamine Thiam yaayu doxandéem <laughs> mas naa fa ñëw ndeysaan mu ne ma xaaral reer ma ne ko yi damay guddee Dakar daa sori rek mu jël reer ba def ci oto ba ndeysaan ñu dawal ba ndànd rek ñeex bi tàmbali xeeñ <laughs> ma xam ne su ma wàccee su ma jàddee kër imaam ab lay <laughs> Ndaw du Ablaye imaam Ablaye sotti rek ma continuer ba ngaay mi xëy ma wàccee si tëdd yaayu doxandi tubaarkàlla itaamu taam loolu nag waa ndar lu ñu mën la joxewu ñam mu tax doo nga daara ya fa nekk am na ci ñoo xam ne waxatuñu dara ndax am nañ yaayi daara mbokk yi joxewu ñam lu am solo la euh, dañoo jël ci abo Moussa al Ashari kenn la ca saaba ya abo Moussa al Ashari kenn la ca saaba ya yonente ba xooloon na ko Aba Moussa mu ne ko labbayka mu ne ko yéen ci man ngeen bokk mu ne ko ah mu ne ko waaw waaye may ci yéen laa bokk ndax yéen ay socialiste ngeen bi kulli ma anal kalima nag waaw social bi nekk ci yéen mooy yéen bu jamono naqaree da ngeen dajal li ngeen am lépp séddoo ko ci digg ba waaw tey bu ñu xëy si woon huit heures Baye Omar wootee dix technicien yeeg journaliste yeeg. ustaas yi ñun ñëpp ñu daje ba amar na na ku nekk génne li ci poosam wala na ku nekk dem génne la ca bànkam waaw nu dajale lépp ci rajo bi buñ ko séddoo ñëpp am te su boobaa ñun ñëppay tolloole nu wutiwaat aba Moussa yonent bi nee na ko yéen looloo ma jaaxal ci yéen te àdduna si mbirum social moomu daanaka ñoom dong koy def moo tax addis bii Abu Moussa di nettali allahu akbar du hasard de waaw togg ñam joxe waaw am na jënn jigéen ju baax bëggul ma wax turam waaye léegi rek tabarkàlla mu ne neel daara ji buñ togg añ mu ne ëw waaw mu ne ëw kon abu muusa nee na yonente ba nee na at imul ta at imul jaa'i wa udul marid wa fàkkul jaani wala al aani ngeen baal ma nee na yonente ba nee na dee leen jox ñam ku xiif allahu akbar dee leen jox ñam ku xiif dee leen woote añ dee leen woote reer dee leen woote ndékki dee leen fexe ba ñi xiif lekk togg leen yóbbu ci nit ñi togg leen yóbbu ci jumaa yeeg jàkka yeeg daara yi waaw ndax tuyaaba ja ca nekk koo ko xamoon boo duggee sa xabru da xam ne su ma yëgoon yokk lii professeur jenn waay da doon ndékki jenn waay da doon ndékki ab yalwaankat jaar fa di ko yalwaan mu xaaj mburu doon ndékkee jox ko xaaj ba jël beneen xaaj bi maanaam liibaru mburu la doon ndekkee am ku yelwaan mu ñëw xaaj ko jël genn waa liibar jox ko genn waa liibar ñu dem yamal xiyaam ñu taxawalal ko juróom-ñeenti conteneur yi mburu waaw mu ne waaw yii conteneur ba kañ ñu ne ko dafa am benn bis ci dëkk sàngam ci dëkk sàngam ngay ndékki am ko fa jaar di yalwaan nga xaaj sa mburu wa nga doon lekk nga xaaj ko jox ko mburu moo jur conteneur yi sa conteneur yi mburu yi waa ji windil bi ñu ne ko la xew mu ne bu doon démb doon tey kon mburu wa lépp laa ko jox ne kon dix-huit laay am allahu akbar kon laay am wax na dëgg de neuf conteneur laa am bu ko joxoon mburu wa yëpp dix-huit conteneur lay am te kat bu ko joxoon liibar ba yépp kon bu ko joxoon kilo lu muy am <laughs> allahu akbar moo tax mu rëcc ko kon nag yonent bi nee na dee leen jox ñi xiif waaw togg leen ñam jox leen dee leen woo ñuy lekk togg leen yóbbu ci jàkk yi togg leen yóbbu ci jumaa yi waaw fu ngeen dégg bu xiif sol leen seen dal jëm faa dem jox ñooñu ñu lekk moo gën kopp-koppal beeg dajalaatu geeg tabarkàlla till marjax yeeg ñoom seen yooyu te ku fi xewu da nga fi mas a gonte benn bis te ku dem boo demee da nga soxla loolu lekk sëriñ Cheikh nee na ku dee um xaw ma kañ ngay wari waaw tabarkàlla mu ngoog loolu benn tomb la mu ne dee leen seeti ñi feebar wuxuudul marid dee leen seeti ñi feebar seeti ñi feebar feebar mooy dal nit ba mënatut a jóg léeg-léeg mu dal ko mu génn ci àdduna léeg-léeg boo déggee sa mbokk mu feebar mbokkum dëkkandoo walla yooyu solal saw dàll fekk ko fa mu nekk <clears throat> nga ziyaar ko seet ko waxtaan ak moom te waxtaan bañ a yàgg nga ñaanal ko mu ñaanal la nga ñibbi te bul dem di nettali waaw bul dem di nettali waaw bul seeti ku feebar it naan ko sa feebar bi dafa xew waaw virus cor moom la ndax dafa xew siin kon moo la dal bul wax loolu ku feebar déedéet ndeysaan benn xeetu feebar la bu feeñ fële ci siin commencé dugg ci dëkk yu mag yi yàlla na nu teggi yàlla bu mu fi agsi bi koy door bi koy mujj a topp juróom fukki nit ak benn génn nañ ci àdduna junni ak ñetti téeméer dal na leen ca dëkk booba waaw yeneen dëkk yi nag ñii ay ñett ak ñeent ak ñii juróom yàlla na nu teggi noonu <clears throat> kon nag seeti ku feebar waaye seeti ku feebar ba noppi ne ko sa feebar bii daa xew sàllaw dëkk sàngam de jot na faa jël ñaar ak ñett waaw loo bëggal kii ku seeti ku feebar du tudd dee naan ko feebar ju dul teg dee dara baatu dee bu ko fu tudd kenn du seeti feebar ji tudd baatu ko dee kenn dem ci cee du fa ci du yooyu du barab yu tudd dee rahimallahu aw sakata fa kon nag nañ joxe dee leen joxe aw ñam dee leen seeti ku feebar ñu ne waaw yonent bi mu ne ba ca tege mooy wa fakkul aani allahu akbar te ngeen yewi kuñ yeew ah bon ngeen yeewi kuñ yeew <clears throat> kuñ yeew léeg-léeg da ngay dëkk ak nit ñu couper ko courant wala ñu couper ko ndox ndax daa fayut te ñay fayu mënuñu koo muñal ndax mënuñoo muñal ñëpp ndax kon mu daanu nga yëg ni kii dañ koo couper courant quarante mille peut-être vingt mille peut-être cent mille peut-être te nga yëg ko. solal saw dàll la nga ci mën lépp nga def ko mooy yewi ku ñu yeewu ah, waaw yewi ku ñu yeewu gis nga xaalis boobu waxoon naa ci tafsir yi àjjuma yi weesu yi nga xam ne ñooy jékki-jékki tëral dara di ca for dara di jox aw nit baax na de baax na de bëgguma lim benn nag waaye baax na de yeewi ku yeew léeg-léeg nit jaaxle lool te lim jaaxle peut-être ay quinze mille la vingt mille te loolu defal ko ko du dara su ko fa fekkee su ko fa fekkee moo tax réew yu yooyu am da gis ku jël xaalisam dem teg ko fenn nekk nangam ma tax ba teg ko par exemple jékki-jékki am sa benn R plus 3 daal lii. daaraa tax ma def ko wala lii sëriñu daaraa tax ma def ko sunu góor ga dafa génn dey ndeysaan waaw tabarkàlla mu nga woon fële ca yaraax góor gi Ahmed Gay waaw góor gi Ahmed Gay soo ma saan ñëw ne ko diw boroom xam-xam la mu ne nañ fexe ba ma ba mu bokk ak man li may am wool leen moo ko lay wax ñu woola mu ne looy dépensé nga wax loo soxla ci ceeb nga wax diwleen lu ngeen soxla nga wax dangaa am këram da ngay luyee mu ne damay luyee looy fay nga wax mu ne lépp ñaata la nga wax mu boole lépp weeru jot mu takk ko yët la aw weeru jot mu takk ko yët la waaw lu xew mu ne dama bëgg bokk ak yow li ma am ndax bokk ak yow li nga am <laughs> ciy wàjjule dama bëgg a bokk ak yo bokk ak yow li ma am ndax ma bokk ak yow li nga am lan la am moom xaalisam la am alalam la am yow mu ne yow lan nga am mu ne tuyaa ba nga am ndeysaan kooku déggin wu am solo la waaw mu ngoog jenn waay ñëw ci yonente bi alayhi salaam ne ko yaa rasulullaah ayul islaami xayr nit ñi ku ci gën ku ci gën lislaam mu ne ko bu fekkee dangaa bëgg am lislaam bu gën ci lislaam doon jul bu gën jul yi tut imu taam waaw wa tafsu salaam ala man arafta wa man lam taarif ala man taarif wa man lam taarif mu ne ko ñaar yii de ku ko saxoo kenn gënu la kenn gënu la lislaam mooy joxew ñam tey nuyoo <laughs> seet te te te ay ñam tey nuyoo xam nga nit ñaari xol bi nuyu nuyu nuyu koo xamut yombut waaye nuyu koo mere it yombut nuyu koo kontor yombut ndeysaan mu ne kon ku bëgg sa lislaam gën ci lislaam yi nga doon nit ki gën ci nit ñi del joxew ñam tey nuyoo del joxew ñam tey nuyoo allahu akbar del joxew ñam tey nuyoo del yàkkale tey nuyoo mu ne nuyoo bi nag del nuyu koo xam ak koo xamut del nuyu koo xam ak koo xamut nuyu ko xam moom xaw taxu koo jafe bu ngeen merewut